salaamaaleykum di sant yàlla julli si yonent bi ñuy gërëm soxna Nafi Fallou Fall di gërëmaat soxna Nafi Fallou Fall li nga xam ne yàlla suñu borom xéewaleel na ko sëñ Fallou xéewaleel ko ko bu koy dimbalee doomu aadama yi Sénégal monde entier képp xamul soxla si dégg nga ko ndax day dimbale doomu aadama yi ku sonn boo ñëwee mu dimbale la ñaanal la ba nga am tan ba mën a dem di doxi say soxla di liggéey di fajal say waajur kon nag soxna si maanaam amuñ fayam ah man de mi ngi fi jëm woon na torop woon na tar na man maa ngi gërëm soxna si di ko gërëm di ko gërëm di ko sant aw ma fayam saa yu ma xëyee sept heures du laa jóg sama yaram na cocc may dem di yi sama soxna di liggéey sept heures bu ma fi guddi laa ñëwaat sama kër kon nag soxna si maanaam aw ma fayam maa ngi koy sant di ko gërëm xéewal gi sëñ Fallou gën koo yokk gën koo yokk ndax xéewal gi kat jëmul si moom kese doomu aadama yëpp li ciy dimbale képp ku jaaxle boo ñëwee fii sa aaja faju sa aaja faju